waaw gis nga. sama jëkkër la rek. waaw jëkkër la mais Ndeya tout jëkkër sama jëkkër quand même naka nga waral tey moo gën a bëri ci sa ay kàddu. waaw parce que sama jëkkër moo ma dooleel tamit aussi tamit bëgg naa benn affaire euh, mooy il faut que maam bi il faut ma gërëm ko nag. parce que wax dëgg fa yàlla aw ma fayam moom ma ko gërëm dama koy bàyyi ak yàlla mu fay ko parce que sama xew bii sama xew sonn na ci torop torop torop billaahi sonn na ci façon sonn bu ne sonn ko ci xew bi li ngeen gis lépp lépp maam Mbaasin ci man dama xaw ma sax la laa ko war a wax man dama koy xool nii rek xaw ma lu ma ko war a wax yal na ko yàlla may gudd fan ci barke Seydina Muhammad mais gis nañ ni moom dafa nekk ci dëj mais dafa bàyyi lépp pour waral loolu. léegi moo tax ma ne leen nag aw ma lu ma ko fay. imaginer ku am dese. mu bàyyi léppam di ma dooleel. parce que xam na ne rakam laa wax dëgg fa yàlla moom daal maanaam balaa nga xam sa nit dëgg nga xewle mais kii sama nit la kii aw ma fayam de yal na ko yàlla fay ci barki Seydina Mohamed. sa takk a ñëw gis nañ fi Fama Faye gis nañ fi Mame Ndiaye gis nañ fi jaaykatu diw yëpp quand alors relation boobu lan nga ci mais c'est normal. parce que ñoo bokk milieu yi ñoo bokk milieu bi bu kenn xewlee il faut ñëpp dem mbooloo mooy doole te bu ñu ñii di wut alal bu ñu ñii di utal nit ñi loolu am na solo torop waaw. alors lan ngay wax tey ki nga xam ne moom mooy sa sa borom kër euh, ci takk moom rek dëgg fa yàlla sagal na ma torop mais complicité bi ngeen am la. bi eh, ngeen am lan la yéen ñaar. sama xarit la. li ma leen wax ne naa leen sama jëkkër mooy sama xarit. daw ma dikkuma aw ma xarit aw ma àndandoor mooy sama xarit. Pendo Guissé dañ ko dégg mu wax ni sama yaay mooy sama xarit te ku ma bëgg ku ma bëgg la kàddoom yooyu tey lan nga ci tontu. waaw man tamit sama jëkkër mooy sama xarit du ma def du dul bëgg yaayam. nel Pendo dinaa ko bëgg la yaayam ba mu neex. incha mais nga nar a ci kër ga say jaagar jaagar. ah ñaan yàlla rek jubóog ñëpp ñu nekk benn. su ma demee ñoo fa fekk ma topp seen ginnaaw loolu rek laa bëgg incha allah. d'accord fi ñuy tàggatoo wee euh, Ndeya tey yaa ngi def sa mariage sa wayjur bu jigéen fekkewu ko alors lan ngay wax ci loolu quand même. bëgg a yàq sama maquillage waaye du ma ko nang yàlla baax yàlla baax. merci beaucoup ma dégg ci bala nga maa diggaat jëwel maari kuma jo digal faraxam faraxam ñaari yoon am sama ma yor sa baax ci biir waaye alaaji may caam waaye xam nga noo def dooni xam nga ne ko sama Malick Mbaye di leen seetaan am dama ni eh, bëgg ni ko téye nga bëggee ni nga bëggee ne yaa moo tax bis bi jëlee mu jox la sama di yaa am ngor yaa mën sa nit doo yàq sa nit toog nga sa euh, euh, euh, di di xew waaw gisul papa gisul yaay waaye mam Basine nii teewe ko papa teewe ko yaay ak mbokkam tey lan ngeen yëg xam nga ni sama bis ma ñëwee léegi ci bëccëg la waroon a ñëw bokk ci ñu yóbbaañ ànd mhm. ak ndey sëriñ yi yaay mambaasi waaye moom xam na ne maa liggéey woon mhm. du jooy yaay mhm. mambaasi ni boo àndeeg moom boo ñàkkee parent wala doo ko jooy xam nga tax doo ko jooy dañuy téye ñu ne sa ndey téye day mel ni moo la nampal day mel ni soowam nga naan waaye nag ci ndeyam la ko jëlee muy biisu mambaasi nii ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko famille ci toog man nag bu almi na di bari damay toog di xaar waa xam ne pind du soo nekk sama xaar waaw daan pind hmm. ndax maa rek ma jënd ngeen for lamb for lamb ñaari ma jënd yaa di ko maay sa yaay maay sa baay maay sa baay maay sa baay jëriñ séeréer yaayal jëriñ moo fi taxaw ndeyam daa dee yaa ma persévère ak naam yaa leen yor man Lassine Thiam yow su ma wax ci yow su ma dama wax xam lu ñu la am waa maam Ndiaye damaa bëgg ngeen taxaw nde yaa ngi dugg si ma boole leen ngeen ñëw dugg si jàkkaarloo ko taxawal cinq minutes aca dugal si leen de yaa aca jëlal ma moo faama moo

ko. Hanya pukul. Mabasi ko po pagkakangkalo. Mabasi ko po pagkakangkalo. Mabasi